annani kay joni jenga waka waka kay jenga bugadem kay joni kay colle jaɓi kam noɓe gandu kay elaaji njayi hay goto wonta ƴetta ma mam mbuyma defal ma mam defal naka mam defal naka mam defal naka elaaji mam defal naka yow xanaa balaa ngaa saaga nga nuyoo ba pare mi calmini bandiraɓe sénégal naaɓe fof bandiraɓe fuutankooɓe jooni noon jennga joge dekka bu ñuy wax wudduru Fuuta nga jóge wudduru ah wudduru dëkk bi moo tudd wudduru dëkk El Hadj Ndiaye dëkku noon danga dégg sa mbokk bi Abdoul danga wax ah. nit bi El Hadj Ndiaye danga wax coronavirus bi ah man saaga moom waaw maam yow yaa ngi kaas ak El Hadj Ndiaye 2 loo bokk ak El bay kaas moom suma mbokk mbokk bajjan moom pend ah eh, Mayram Demba. Hmm. moo ko bokk ndey ak baay. ah ñoo bokk ndey baay. jooni noon denga tegga nit bi moom denga waka bu baax sen denga saaga. Hmm. jooni noon koko saaga sen denga ko waka sa cokkal maama. waaye déedéet maam muy eh, ma. maam. oh meer ba mer na ah bokk Tektal TV ni ngeen ko gisandoowee meer ba meer na dem na kon nag ñu ngi jox rendez-vous ba beneen yoon jërëjëf.